ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sang-sang yi mooy sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa di nuyu sama mag koo xamante ne mooy Cheikh Moussa Traoré te mu nekk yëmbal di nuyu tamit sama mag mooy Cheikh Alioune Ndiaye mu nekk Grand waaye di yu ba tey samay mag ñoo xamante ne ñoom Youssouf Badiane Moussa Badiane te ñi nekk yëmbal di nuyu Ousmane Badiane nekk Kër Massar di nuyu ba tey koo xamante ne mooy sama kilifa mooy xaaj Mouhamadul Moustapha Sylla xalif général de ba Marsassoum te mu nekk Casamance ci jamono ji di nuyu tamit ñoo xamante ne ñooy samay am di jàmm samay xarit samay dëkkandoo waaye nag ñoo xamante ne ay taal beneen tamit ci kër gi mbokk yi ba tey di nuyu ñoo xamante ne wax fa yàlla seen taxawaay ci jëmm ji ci sama wet lu melni sama jigen sama xarit sama mbokk moy soxna xaar kamera euh, ak ñu mel ni ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu su ko defé di leen yeggal na bas bo xamantene bas bés boobu la ñuy jublu mooy bésu wàccee kaamil bés euh, màggal suñu borom waaye bésu cant ci loo xamante ne dimanche incha allah le 21 avril ci lañ koy ci lañ koy ci lañ koy defee su ko defee mu doon événement boo xamante ne événement cant lay doon ci suñu diggante ak suñu borom mbokk yi loolu fu muy amee mooy Tëngéej. bu ñu ne Tëngéej mooy quartier bu ñu ne Arafat marché mardi ci tournar Kalando hmm. événement bi foofu lay amee Tëngéej la quartier bu ñu ne Arafat marché mardi ci tournar Kalando mbokk yi dimanche bii di ñëw mooy le 21 avril incha allah ci lañ koy def ci ndimbalu suñu borom. ak man-manam su ko defee di ci woo ñu ma ñëw tudd nii mooy mbokk jullit yi yëpp ci woo mbokk jullit yi yëpp di ci woo dëkkandoor yëpp di ci woo cépp koo xamante ne doomu aadama la di ko woo ci bés bu bii su ko defee incha allah di woo nag ñoo xamante ne ñoom dayre yi su ma ko waxee mooy samay daayira ci yoo xamante ne ak bu ne seen gàmmoo man mii maa leen koy e, conférencial su ko defee li ci njëkk mooy daayiratu xubbu rasul daayiratu xubbu rasul ñu ngi ko woowee association Téesito te mu nekk Daaru Rahman ci biir Tëngéej fii seen njiit bi mooy Momadou Lamine Dabo ak sen president lu moy Adja Ndeye hadi Dramé di len wo donte nak mbir bi sen mbir la yegg ngeen ko te yenen ki taxaw tamit taxway bu mat waaye nak batay di len ci wo lu jaadu la ci sama làmmeñ waaye nak di wo tamit sama wa dekk ño xamante moy association IDEMA de marsasum su ko defee seen jiit Cheikh soyou Sané di wo ak njabotam yi ak wa association bi yep ci bi di ci wo tamit euh daaira bo ne sama euh, daaira bokku la moy daaira Kasim Silla te mu parcel ñoo ñooñu tamit ñu ngi leen di wo seen jitt moy yusuf Ñaabali su ko defé ak njabootam yep di wo tamit daaira Yasin suratu Yasin waaw tamit ñu nekk Grand Yoff di leen woo ñoom Samate su ko defee incha allah ak ñoom Basiru Danjo su ko defee ñëpp ñu xam ne ni bés bi seen bés la waaye nag di woo ñoo xamante ne euh, samay nit lañ lu mel ni Albé Ndoy Albé ñu ngi ko ci woo su ko defee incha allah euh, xam ne ni bés bi bésam la di ci woo Ousseynou Faye ah, di ci di ko woo ci bés bi moom tamit xam na ni basam bés bi basam la waaye nag di ci woo am di jàmm yëpp yëpp ñëpp ñëpp bàyyi ñu kenn hmm? ah, waaye nag di woo suñu imam quartier bi mooy imam Gaana Gueye di ci woo tamit suñu chef de quartier mooy Pa Jibril Gueye di ci woo Euh, kilifa yoo xamante ne ak borom kër yoo xamante ne ak ustaaz yoo xamante ne borom xam-xam yoo xamante ne ñoom ñoo nekk ci eh, koñ ba fi mooy Arafat 2 kon nag mbokk yi programme bi dimanche la dimanche la incha allah euh, à partir de dix heures et demi dem ba midi une loolu waxtu la boo xamante ne. suñ borom moko mom parce que waxtu wàccee kamel la soko defé inshallah mu andak ay dog yo xamantene dañ koy def ci bés bob soko defé defee bu passé ci lañi tag kat yonenté yi eh, di jog xam ni sama jigen sama xarit sama mbokk moy soxna Awa fal mom mo wara a eh, tàgg yonente ak équipe am su ko defee incha allah seen tabala euh, soo ko defee incha allah euh, ñu commencé mbir bi ba conférence yi waxtu yi ñu commencé am naa ni conférence yi moom am conférence yoo xamante ne soose la ñuy waxtaane mooy doomu sëñ bi mooy doomu sëñ sëriñ alhaaji Mouhamadul Moustapha Sylla xalif général de Taïba Marsassoum domam mu tuddu muxtar Silla kok moy waxtane eh, bes bi ci kàllaamay sosé waye nak am samay am di jàmm yo xamantene def fa yàlla ñooñu tamit am xamantene dinañ baye ko ti wawon moy Cheikh Moussa euh eh, ñom ñepp ak euh mu wara andal ñom sumaré su ko defee incha allah ak ñoom njaga ku nekk kër Mbay Fall su ko defee ñoom tamit bu ñu ñëwee ñu waxtaane ci kàllaamay euh, olof waaye nag dina am sama am di jàmm sama mbokk mooy Cheikh Bekkaay Jaxate Cheikh Bekkaay Jaxate moom tamit ci maam la ci dëkk buy ne Mbambilor moom tamit incha allah dina waxtaane waxtaanu kàllaamay olof ci bés bi kon nag mbokk yi lii daal mooy programme bi nu mu war a bu soobee suñu borom su ko defee incha allah bëgg nañ ko teel a commencé dix heures dix heures et demi waaye nag dix huit heures dix neuf heures bëgg nañ programme bi mu yem fa su ko defee ñu ñaanalante ah suñu borom may ñu wér may ñu gudd fan bàyyi ñu fii ba ñu fekkee ay at yu bëri bëri waaye di ñaan yàlla tamit kenn ku ne kenn ku ne la mu mënta indi ci soxla jour boobu ñëwee suñu borom fajal ko soxlam waaye nag di ci beral nuyoo ci samay njaati ci samay mbokk samay xarit samay sëriñ samay am di jàmm mooy eh, jëmm bu sell boobu mooy Cheikh eh, pak ciakom Ngom eh, diko nuyu diko jox waccu wayam diko xamal ni inshallah ma ni batay di dem ci suñu directeur général moy Haj Mustafa Ngom mom tamit diko nuyu diko jox waccu wayam xamna ni ëttam eh, ma ni ñom su ko defee ñoom ñeer euh, ñu xam na ni euh, bés bi daal seen bés la waaye nag fàttewuma suñu xalif mooy Haaj Ibrahima Ngom ak rakkam bu tëdd boobu mooy sëñ Babacar Ngom ak waa Ngomeen yi yëpp ñepp ñëpp bàyyi ñu kenn sëriñ yi ba ci taalibe yi ñoom ñëpp ñu xam ne ni bës bi seen seen bés la kon nag mbokk yi lii daal mooy loo xamante ne Eh, suñ borom li lañu jublu ci katanam ak man-manam ñi ngi ñaan nak lepp soti be lu ñu bëggee bi mu taar non ak mu démé non ngir yalla kessa tax suñ borom defal ñu loolu waaye nag ma tamit suñu kilifa suñu papa moy xaaj musa Pa musa Jaxate eh, tegee fi ñepp xam nañ ko so ko defee incha allah eh, di len ci wo ci bëss bi waaye di woo samay dëkkandoo yi bopp ñoo xam te ñoom laa bokkal quartier bi su ko defee mbokk yi lii daal mooy mbir bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu